ngeen jëf mbokki làmb mbokki amateur yi siiw fu ne ci àdduna bi di sant ñi nga xamante ni tamit waa Actubuzz tout le temps ñi nga xamante ni ñu waxtaane ci mbirum làmb di waxtaane toujours li nga xamante ne may xew-xew làmb démb nag ñu ngi fële ci stade national bu Pikine nekkoon la 15 journée ah, li nga xamante ne mooy Zalko lam fa def démb ci côté ambiance ah neex ma tous bëri bëri bu réeba ne mooy Baye Mandione ñu fas yéene nag nga xamante ne mooy Zalko ay kaddu ñu waxtaan ci li nga xamante ne mooy journée bi amoon démb ñu ngi leen waaw gaynde ñu ngi lay fay di kontaan ci sa teewaay di nuyu l'ensemble zone 7B de di leen masaw bu baax a baax di leen xamal ni lii lañ lii lañ bëggoon dem indil leen ndam indil e, jox leen ko bégal leen ci loolu lañ loolu moo taxoon ñu noon ñu doon woo woote ñëpp donc te yàlla defal ñu ko ñu ngi sant ñëpp di sant aussi sama mbokk xaalpulaar yi di sant sama mbokk joolaa bambara yi saraxule yi njaago yi ñu kenn di sant euh, Mathieu Mathieu bu Batman euh, Batman Choose comprendre nga di ko sant bu baax a baax parce que dafa yëkkati dàll yu bari ñëw jox ma di sant gaa yëpp bàyyiwuñu kenn euh, surtout sama waa koñ maa leen di sant bu baax a baax ak xale yi sama xale yi koñ di sant sama fans club ñëpp maa leen di sant bu baax a baax aussi. dëgg euh. Zarko ñu gis nga def benn retour bu am solo ci làmb nga ñëw boot waa équipe grand mbooloo nga nekk ànd ak xale yi nga nekk ci liggéey bu metti gis nañ ci combat bi démb wane nga li nga xamante ne mooy ci côté altitude bi nga xam ne bi nga nekkee ak toog ba nga toogoon Europe nekkoon foofu ne da nga nekkoon foofu di entraîné di liggéey parce que démb wane nga ay preuve yoo xamante ci làmb démb xam nañu Zarko ci ci làmb la bokk. waaw mais man nekk nekkuma Europe di caaxaan de <laughs> loolu ñi kay def du ñun de. xaw ma loolu sax non parce que xam nga nit nit li ngay def da nga koy bëgg. dëgg la nit li ngay def da nga koy bëgg boo ko bëggee rek da neex a àndal. te man yàlla dafa def dama bëgg entraînement. man du làmb moom boole ak entraînement. làmb avant ma ciy dugg dama bëgg entraînement sama parce que dama bëgg doole man. parce que xam nga dama yàgg ci xeex. Ah. te boo yàggee ci xeex da ngay bëgg ut doole. te loolu kese moo tax euh, bi ma nekkee Europe nag yàlla daf ma dimbali may entraîner di liggéey di entraîner di liggéey. Mm-hmm. loolu laa fa nekkoon parce que xamoon naa ne tôt ou tard damay dellu siwaat ci làmb ji. parce que euh, génn nañu par benn benn benn benn mere bu ñu mere woon seen CNG. taxoon nañu génn. comprendre nga si après si mais après bi ñu demee ba toogaat ba waxtaan naat xam nga ak sama staff. Mm-hmm. xam nga bi heure bi jotee ñëw bëri si te du changé wul dara si ñun ah mhm. wax dëgg yàlla tey la ñu gën a mën a entraîné tey la ñu gën a mën a entraîné donc du du làmb démb bi rek moo moo moom lañ doon entraîné noonu non nga jëloon ñaari avance jël xale bi naan mooy mbay guy gi làmb doon ko coow ñu bari naan xale bi kenn mënu ko freiné ci làmb nga ñëw freiné ko ñu naan déet bizarre euh, ko jëlaat kenn mooy bàyyi ma ñoon teg ko ci tamit balaa munoon gën a neex na xoolal ñu tegalaat ma léegi-léegi avance Eumeu Sène ak bu Boy ah. ñu tegal ma ñaari <laughs> avance nga xool. parce que am lu ñu la de. non dé ma dara de sama yaram ci boppam moo ma ko dee du xaar ma ko ci ma sàmba xaar ma ko ci ma demba man ci sama jëmm rek en âme et conscience ñu tegal ma avance booy ñaar ak Eumeu Sène wala avance Eumeu Sène ak Tapha Tine ma jëlandoo ñaar yëpp te. ba nga guy. guy gi non mais guy gi guy gi du Thiès quoi. Chelsea. <laughs> ah dañu ko rek du Chelsea du Chelsea cest à xam nga da nga koy daan après ñu ne xamaat xamoon nañ ko. xamoon ko loolu la quoi du du Chelsea man ay combat yoo xamante ni parce que xam nga lu ma neex ci combat bi man. Mhm. bi ñuy génn fii. grave yëpp dañ ne Zarko dañ koy daan man loolu moom may neex ci combat. mën naa dem ñu ñu jox sama adversaire favori man ñu bañ ma favoriser man combat yooyu ñoo may neex mais combat bu ñu ma jox favori rek la plupart mun naa ci bañ am change mais combat bu ñu ma ne kii moo ëpp Zarko doole kii moo ëpp Serigne Zarko kii moo ko mën tey mu rey Zarko man combat yooyu laa bëgg. mais dañu gisee combat amul benn combat bu mu boo mos a bëre mbër mbër humilié la yaay bëri sa biir bëri ba ñàkkal sa bopp combat bi lan moo waraloon loolu. moom la rek loolu fougue de jeunesse la. xam nga xale moom boo boo nekkee xale di entraîner yàlla dimbali la macha allah ngam am pour yow lu taxaw sa kanam yaa ko mën donc mais léegi dañ ci mur ñor nañ ci bu baax a baax donc am na loo xamante ni amatuñ duñ ko duñ ko sax def. fi mu nekk nii li may wax daal mooy lenn man je veux relever des défis. défis yi nga xamante ni mbër yi mbër yi ñuy wax. comme ñoom booy Niang ñoom Ama échoué nañ ci. Mm-hmm. mën nañ ma ko jox. Mm-hmm. nañ ma nañ ma ko jox ñooñu man kuñ ma ci jox man ma daan la bul sonn muy bombardier muy Eumeu seen muy Tapha kuñ ma ci jox ci ñoom ma dëpp la lu leer laa la wax. mais Tapha Tine nag fi mu ne nii. loolu dawul sama yaram. ah Zarko Tapha Tine Tapha Tine Tapha Tine. lijjanti ma combat bi passé lijjanti ma loolu. boo ñaa def ci télé def ci télé. nañ ma ko nañ ma ko jox. buñ la jox avance su Tapha léegi léegi. ma jël ko léegi léegi léegi génne ci 6 millions yóbbu ci sama yaay ak sama maam maq en attendant avant tout. kon yàlla na ko yàlla def. amiin loolu laa loolu laa ci njëkk a def avant tout. Ah. <laughs> loolu moom bu baax leer. dëgg la ñëw ci ci biir bëre bi nga bëre bàyyi ma ñoon démb. gis ngeen bëre bëre boo xamante ne bëre bu métti la ci biir bëre mais bëre bi gaa na trop. trop la mbaaree. daw samp sa kaw non si daan si noonu bàyyi ma ñoon xam la moo tax amul sens man dama am element am man bëre bi muy bëre ak taay bi mu am. dama ko am avant may dugg si làmb muy sama benn grand frère bu ñu wax lamin ñu koy wax Tyson ñoom ñaar teg teg ñoo tolloo lépp te man Lamine noonu laa ko doon daanee. moo tax bi ma defee loolu xam naa ni dina ma caxabal xam naa ni dinaa ko taloone te dama koy plaqué mu toog. si waaw dafa mel ni ci biir da nga ko corrigé. parce que ba mu ñëwee dafa dafa dafa cabaxal. nga roj daw plaqué. Uh-huh. mais tamit yow man dama yàgg mbapat. <laughs> dëgg la man yow Fatick benn mbëru Ndakaaru mosu fa génnee drapeau Macky Sall la hmm. man kese maa ko fa def jiital seeni nag indi ko fii loolu ku koy def Fatick doo mbër bu ndaw non dafa leer Fatick ñoom ñëpp dañoo taxaw ne kii moo leen mën bu mu fi bëree di loolu tax ma <laughs> bàyyi fa bëre mais démb coow li ci làmb ji Zarko démb ambiance bi ba ñëpp naan non Zarko démb lan la àndal ci làmb lan la woon démb làmb jëm loolu la non xam nga eh, bi ñuy def open press dama waxoon sama supporters yi ne leen hmm. Zarko bi ngeen gis fii ak bi ngeen gis stade du doon benn mais loolu foog ñu confirmer leen ko parce que samay supporters amul benn kanam bu ma leen di wan parce que man ay affaire comme nga ñëw nii ay open press di yuuxoo ko xiiroo ko nga eh, yooyu man xaw ma loolu comprendre nga man ci jours yi ci ci ci ci digg njàng bi mhm. fa la soos bi di génnee yaa xam ban soos ngay indi mhm. mais soos boo indi nañ ko boole njàng bi waaw bul sonn loolu loolu moo tax xam nga buñ demee biir stade dañ koy neexal dañuy show dañuy parce que dafa nekk loo xamante ni làmb la sport la coow la mhm. comprendre nga eh, te sport business la donc foog ñu jaay tamit suñu culture comprendre nga eh, lenn rek lañ ciy ñaawlu mooy eh, raxu baay ma njoon boobu tëb dugg ci biir géew bi di doon doon doon di bugguma xaw ma yat la ma bëggoon dóor xaw ma mais daa amul fit ba man bu ma yoroon yat boobu hmm. moom du egsi du taxaw foofu man xam naa loolu non du fa taxaw man na nga dof ah, mais ay ay saw ñu ma sotteeg yooyu yëpp man yooyu yëpp dérangé wu ma yooyu garaawul yooyu si làmb la bokk comprendre nga mm-hmm. mais lenn rek laa ciy ñaawlu mooy booy bi li mu tëb ñëw di wax ak man ma Mandione bu doon dafa am fi dëgg-dëgg moom mooy ah, tëb mbër mi dañ ko bàyyi ak mbër mi si dañ ko bàyyi ak mais du du du mbër mi ak euh, ay ay supporters yi non parce que man bu may dem si géew bi ñaari nit laay àndal comprendre nga même bu may dem pour griller ko sax ñaari nit laay àndal donc moom na jël responsabilité mu tëb ñëw wax ak man mais pas ay nit di ñëw di di wax quoi. dañu si digg géew sax parce que lu am ci làmb loolu mu am ci dikki moo loola de guerre géew gi ba policier dugg ci biir enceinte leen. non du moo loola de guerre de. Modou Lo Balla la. Modou Lo boobu man maa doon bëreeg Sa Thiès. policiers yi dugg séparé ñu. séparé ñu man maa mel noonu. waaw man fu ma bëree foog géew gi buum yi dugg ci. ah dugg bul sonn <laughs> loolay loolay charme làmb. <laughs> gisoo may dawloo policiers yi bi ma paree nag bi làmb ji jàllee ma dem ba ci ñoom sukk ne leen maa ngi jéggalu nag làmb la. Hmm. comprendre nga làmb woon làmb lañ doon def donc jàll na. Hmm. ma leen delloo leen seen seen seen seen seen daraja xam ne bi dañ ko respecté. parce que ñoom ñoo ñuy aar. Hmm. loolu kese la loolu lañ ci jublu woon quoi. di sant commandant Thioune di kontaan ci moom bu baax mm-hmm. parce que sama moom maam laa ko def mm-hmm. commandant Thioune moo tax fu ma ko fekk ci làmb dama koy damay ba dafa mm-hmm. a baax di la gërëm di la jégalu aussi ci ni ma lay daraayeeg ni ma lay tooñee man noonu laa mel man dama dañoo jógee kooku ñoom ñoom ñoo ko jëlee Guinée <laughs> billaay wallaay kooku mënu loon bañ a ñëw dama leer. mbaam mi moom lañ supp ci guddi gi biñ ñëwee. wax gisoo ni ma beesee. <laughs> dama leer dañu naan ci supp ba waaye yow. billaay walaay. démb gars yi état bi la zar mi boobu mbaam dafa leer Grand Yoff la kooku mooy kooku mooy cosaanu Grand Yoff nag. si kookoy cosaan mi. Hmm. bopp mbaam mi foog laal nii. ak koroket bi. mënul hmm. ñaax. <laughs> <laughs>